bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bi ma sante yàlla bu baax a baax a baax ci julli ci yonent bi maa ngi jël nuyu gu ànd ak cofeel gu bari ak warma gu amul fu mu em di ko jébal xalif bi muy Cheikh Mahi Niass di ci toftal Cheikh Macky Niass ak imam Cheikh Tidiane Cissé ak Cheikh Mahdi Niass ak Cheikh Mahi Cissé di ko awale ci moom di nuyu njaboot gi yëpp ak taalibe yi rawatina nag gan yi nga xamante ne ñëw nañu teew ci bés bi te ji waajal bés gu mag ñëw ci bërëb goo xam ne tamit tawféex ju bari ngi fi porte parole bi wax na ko sànq fii tawféex rekk fi am te loolu moo tax xam naa ne am na ñi yàkkamti ma ñëw fii waaye nag maa leen gënoon yàkkamti foofu maa ngi ko doon wax sànq euh, xalif bi bi ma njëkkee fëgg ci bunt bi dañ ma yëgaloon na dafa demoon umra ma toogaat diir fëggaat ñu ne ma bu mu jógee umra dafa jaar marok loolu xawoon yeexal nag yoon wi waaye sama xel mosu fee jóg ci yéene gi ma amoon ñëw ziyaare ko ndokkale ko te ñaan ko mu ñaanal Sénégal ñaanal ma ndax soxla naa ko te Sénégal soxla na ko te su ma ko sakkoo fii sakkoo naa ko fi mu ko war a sakkoo kon ñas maa ngi lay sant bu baax a baax ci muñ gi ak euh, ni ngi ñu yombalalee mbir mi mettre ñu ci à tamit ba ñu mattale ko ci aafiya ba yàlla may ñu tal ak fekke ak tawféex gu ñu matale yéene gi muy teew gu ñu teew fii tey fii nag dama fi am ay xarit yu bari am fi ay soppi te soppe yi li tax ma soppaleen mooy ni ma sopp Cheikh Ibrahima Niass loolu ñi ma jege xam nañ ko ci man te lu yàgg la xëy na duma ci sori lool waaye am nañu ko xam ci man te xam nañ lu sori la ci man te xam nañu tamit sama royuwaay la ci lu mu jàngale ak lu mu indi ci faydu ak surtout ci taxawaay gu mu am ba jéggi senegaal dem Afrique defar ay nit fii defar nit fu génn senegaal muy patriotisme d'un côté ak panafricanisme de l'autre lépp lalu nag ci xam-xam goo man xam ne kenn mosu ko ci mën a euh, challenge maanaam moo wax nit dindi ko ba am ci dëgg ci moom ndax li ko yàlla may ci xam-xam gu xóot yoo xamante ne bàyyi na ko fi kon wax naa la ko sànq nee naa dafa am lu ñu gëm laata yàlla di ñu nattoo nguur te fas yéene ko wéy di ku gëm tànk yàlla ñu bàyyi ci nguur te bu ñu fi jógee ñuy ñaan yàlla mu baaxee ñu ñu continuer ko gëm mooy diine gi nekk ci ñun ñu ciy góorgóorlu saa su ne waaye gëm na tamit lii defar réew diine ci ëpp wàll ndax gëm-gëm moo jiitu lu ne te liy defar réew ci doomu aadama yi lay jaar ci liy defar doomu aadama yi ci diine la ndax yàlla bu mu wàccee doomu aadama lu ci toftal mooy wàcce tegal ko yoon gi nga xamante ne moom la war a tooge ci biir suuf te loolu diine ñu wax naka la mel kon ñépp ñoo xamante ne teewal nañu fi diine am responsabilité yu wéyal njàngaleek mag yi jàngale diine waaye tamit wan nit ñi royukaay ci ñi nga xamante ne ay kàngam lañu ci diine gi ñun suñu responsabilité mooy may leen cër gu mat sëkk wormal leen taxaw leen taxawaay gu wër ndax mission bi diis na te ñun ñoo leen ci war a jàppale ñun yàlla nattoo ñu féete ci kaw ci wàllu àdduna muy réew mi waaye jookoo gi war a am ci diggante diine ak euh, gouvernement bi muy état ñun lu ñu assumé la ndax donte état bi layig la ñun suñu conception laïcité nekkul ne yoon nu état nekkul ci diine gisewuñ ko noonu li ñu gëm mooy boo nekkee njiitum réew mi nga xamante ne nee nañu quatre vingt pour cent yi ak jullit lañu dix pour cent yi des gëm leneen kon cent pour cent yëpp ay woy gëm lañu ba tax na liberté de culte maanaam gëm dara di ko fësal bileen leen constitution garantir ñun ñuy waat ne constitution boobu ñun dañu ko war a respecter ba pare di wattandiku ñëpp respecter ko muy loi moo tax ba képp kuy dem ci bërëb yoo xamante ne da nga fa bëgg jaamoo yàlla ci anam yi nga tànn suñu responsabilité mooy ñu yombalal la ko ba boo fa demee nga ànd fa ak tawféex ak dalagu tax nga mën ko mata kon liggéey am na fi am nañu lu ñu waxtaanee sànq incha allahu rabbi dinaa ci taxaw taxawaay gu mat sëkk ndax yoon woowu yoon gu ñu gëm la waaye li nga xamante ne nag ci wàllu infrastructure la ci wàllu bërëb gi la luñ ko war a defaree bëgg ñëpp ñu fiy ñëw di jóge bitim réew ñuy jóge fu ne ci biir senegal daw ñëw su fii ci jamono ji ak ci yeneen jamono incha allahu rabbi taxawaay gi dina mat kon di delluwaat di tàllal sama loxo en tant que njiitum réew mi di sàkku ñas ngeen ñaanal réew mi ndax réew mi soxla nay ñaan di sàkku nga ñaanal njiitu réew mi ba doon ak gouvernement bi mu ci àndal ndax ñu am ndam ndax suñu ndam mooy ndamal senegaal bu fekkee ne réew mi am na dal am jàmm ñu doxal ci jub jubal ak jubbanti bu ñu wootee kon xëy na lu bari fi jafe balaa muy yàgg dinañ ko mën a dépasser gis nañu liy xew ci réew mi ci fan yi ñu nekk mu doon lu tiis ci ñun doon lu metti ci ñun waaye mu doon loo xamante ne nag suñu responsabilité ñu àndi ci saafara te ñu fas yéen ko taxawee ba mu mat sëkk kon ñëw gi ma ñëw fii wax naa ko ci sama njëlbeenu kàddu moom laay tëjee mbégte ak contentement gu mat sëkk sëkk sëkk laa ci am ndax ci fi ma Cheikh Ibrahima Niass toll ak ci ni ma amee worma ak cofeel ci njaboot gi nga xamante ne yow la yàlla teg ci kaw ngay xalif général incha allah fii ci Medina Baye kon jàppalante gi ma bëgg ci diggante kër diine yëpp rawatina fii ak gouvernement bi wax naa ne ñëw nañu cinq mois am nañ lu ñu garal ba fexe ba def ko waaye bi semaine bi jeexee ba semaine yi di ñëw dina am kenn koo xamante ne man fas yéene naa ko tabb te waxtaan naa ci moom ba pare dina dox dem ci kër diine yépp jël seen xalaat ci ni ñu waxee woon ne dañu war di jël seen xalaat ci lépp lu ñuy doxal sàkku ci seen ñaan ak seeni joyanti ba bu amee ngeen mën ci waxtaan ak taalibe yi ndax ñu mën a comprendre ñun fan lañu bëgg a dem jàppale ñu kooku dina door liggéeyam ci lu nu ma gën a gaawee ba balaa déwén lépp loo xamante ne mataluñ ko ñu gën ci góorgóorlu bu matal ko ci lépp loo xamante tamit war nañ ko sumb wala ñu sumb ko te matagul ñu fexe nuñ ko sumbee wala ñu matalee ko noonu kon lii laa bëggoon yëkkati ci kàddu di sant ñëpp ci teewlu gi di jégalu nag ci xaar gi ndax am na ñoo xamante ne yàkkamti woon nañ fi te xaaroon nañu fi xaar googu laay jéeglu ndax amoon naa yéene ci njëlbeen ñëwoon fi waaye nag xat-xatu calendrier ak ni nga nekkul ci réew mi moo waraloon gannaaw leneen dugg ci ba mu yàggee nii salaamaaleykum wa rahmatullah